Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku téléspectateurs yi ñuy suivre ci Mourchid TV la chaîne des valeurs Fo mëna nek ci aduna fekk na la fa ni la jabb loxo di la ñaanal jamm. yow mi nga xamni nak baxu nga di and ak kenn bëggul de Seydi Mouhamadinil Mustafa si ci waxtaan yi muy def ñi ngi lay bëral benen nuyo. Yeen ñi nga xamni fu mu mëna nek ngeen fekk ko fa ndax seen tofel ci moom ajuwul ci bërëb ki nga xamni xalé yi sax dañ ko wutal aw way nan ko jërëjëf kenn bëggul jerejef kontan nañ kon nag jërëjën jëf wat nañ benen yoon ngir fasiyene sekk ak mom waxtaan wu am solo waye lata bobu serigne bi ma ngi lay nuyu. serigne bi ñi ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal ngonu jamm ci yalla yàlla ma sha allah serigne bi yakarna ni kula wax dina wax walu safara jangoro yi ak dimbali jaamu yalla yi loolu sax amna ñuy wax ni ken bugul mi nga xamni ni man ci tawati man ci posi yi ni lima lay wax ni yaangi bëgg bari tour ku nekk ak ni lay ni lay tuddé hmm. amna benen tour tur sax bu gennat ñuy wax ken bañul <laughs> loolu ni euh, xamaan di nga ci indi ay leral après hmm. serigne bi man nañu xam lan tax baatu mu serigne Moustapha <laughs> wa xam nga avant tout mhm. maa ngi sant bu baax nag tey masuwu coono ndax wolof dafay faral di wax ne dompat moo di kaata kaata ak dompat bokkut kaata mën naa saf waaye dompat moom du saf waaye ci sot la bokk te baatu waaw góor mhm. baat bu gàtt la waaye ku gontul du ko dégg may sargal bu baax baax mention spéciale nag mooy gurub whatsapp sopp kenn bëggul yëpp 1 2 3 4 5 6 ba 8 ba 9. ah <laughs> dégg ma tudd leen. Uh-huh. mais li tax daw ma ko def mooy dama doon bañ mbiru aada dugg ci. te dafa am dossier bu ma waroon a suivre war a am ay comptes yu ma waroon régle comptes yu ma waroon régler moo doon lan mooy mystique faw ma teg ci ndawal. comptes yooyu la waroon régler. bi ma dee ba xam ne rek naa ko nag mën na leen a delloo njukkal ndax li ma si jublu woon mooy ñu doon def seen i tappaleeg seen yu ñàkk fayda yooyu pour seen xëy ak seen gonteem nañu éliminer kenn bëggul ba sëriñ Moustapha ci média kon nan yokk seen doole seen doole yaa ngi bëgg a yéex de ndax NSTV jàll na kenn bëggul TV jàll na Label Maktoum jàll na Moursi TV judd na mu ndar keppaxanaa sulu arbaan ay lu waral loolu ndax yàlla suñu boroom dafa am turam bu ñuy wax alxayu am turam bu ñuy wax alxalim am turam bu ñuy wax alxaadir am turam bu ñuy wax almurid biñ sëyee seen biir ñoo juru ñeenti xanaatul arbaa yi mu di ndox safara asamaan ngelaw kon soo bëggee dégg benn lañ xamoon ci kenn bëggul mu fa daan doxal ñu jàpp na sama mbir ci loxo nit la tegu ma sepp leen ñuy weñ sànni ci biti lancé leen deviner leen dox la dem moo tax golo yi doon cépp cëpp cëpp lam na seen gen kon nag tey bu ñeenti xanaat yi dajee waatee moo lay xamal ne yàlla nangu na kon nag mention spéciale groupe whatsapp yëpp li ci réseaux sociaux yi compte Facebook yi gis naa lépp dama amul temps di leen tontu rek waaye yàlla na yàlla fay leen yiw waxon na len man ak yeen ba fenen xayan ku deg séeréer dox lañu dem. jërëjëf kon nak xayan ku dégg séeréer sarax itam dafa melni dafa bok ci sey mbir koy jëflanteel mom itam faaw rek dafa am sarax bu muy def ku ci nek yaay xam ban sarax la wara genné wala da fay aju ci garab gi. wa xam nga listixaara ak set ya beaucoup de différence beaucoup listixaara da ngay yalla sa borom mu tanal la bu dee nitu simple munoo weesu ñaari listixaar wala ñett bu dee ki di conditionné nag du dépendre ci liste bi moom lay wax rek dem sama benn mag bu baax fajkat la à l'âge de 69 ans soxna bu jigéenam gaañu ma dem fa di ko jaale ji mu gis oto bi wàcc ci kër gi rek mu a daw ne bu oto bi dugg ci kër gi ñu ne ko lu xew mu ne dama yaakaaroon malade buy faj la bu ñuy faj la ma ko yow ngay faj bi ko kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy la mun a leen agsi bi ma ne ko waa góor gi lu xew munuma dama yaakaaroon malade bi malade la te man suma joxe garab juróom-ñaari bop kese wala juróom ben semaine bi yëpp du am jàmm ma ko waa man miy livré ci semaine bi lu nekk ëpp minimum téeméeri bop ak lu tek. te keroog lay gëna a nekk en forme keroog lay gëna a nekk en laisse te gars yi gëna critique yëpp ak ñom benn du échappé ci kàttanu yàlla ñoom jinne leen fal soo màggee rek mu wor bokku dëkk yor rawaxaan dafay équilibre xam fi mu toll am demi flexion bu gaaw loo soxla ci nombre li listixaara mën naa enregistré yëpp toog fi mu toog te carte dafa am ñaata giga na deux 4 giga 16 giga noonu la giga yi amee ci rawaan yi boo amee 1 giga da xam sa bopp parce que mënoo jël benn taux bi ku yor 16 giga mën naa jël lenn yi ku yor 32 giga mën naa jël lu ko neex parce que miin la du naaxil maa yi mooy tax ku nekk ak fi yow yàlla sponsorisé moo tax seet bokkut listixaara bokkut xaara nag mën nga jël benn taux bi seet mën nga xëy journée bi yëpp xëy na nga joxe compte rendu yëpp mais yooyu yëpp bi ci am importance mooy ban muy sarax li si xaaral li muy génne pour nit ki xam saraxam pour man ci mucc ndax nee la fii bés Daawuda alayhi salaam am na ndaw bu mu soppoon lool bés bu xëyee dana xëy rek raay si bopp bi dem yoonam ba bés malaayika gane ko ne ko ndax xam nga ndaw bi ay fan yu néew ko fi des moo war a dem. daawuda triste lool waaye bu xëyee nag raay bopp xale bi demaat ba waxtu wi jot mu ñëw fekk xale bi de dundu deewut boobu mi ngi dund mu laaj malaayikatul mawti ne ko lu xew mu ne ko yoroon na lu tollu ñaar fukki dërëm rek waroon ko jëfandikoo benn ndaw moroomam ñëw di jooy mu jël ko jox ko ko yàlla multiplier ko dërëm bu nekk beneen at mooy dellu ci cadre joxe cent franc da ko joxe moom mais sarax la remplacé wu ci moom ndax yàllaa ko yëgloo ngir mu def ko mu def sarax mën na fànq jàngoro sarax mën na fànq dee sarax mën na fànq gàtt fan sarax mën na ubbi sarax mën na aar yii yëpp pour nga mën ko décortiquer nag petaaw du la ko jox ndax naa la petaaw mën na laa jox li lay mën na laa jox seet contrant yi léegi 35 secondes laa la wax doonay changé doo wax lu xewaat jinne mën naa la jox compte rendu léegi 15 minutes au plus tard données yi changé dina joxaat mis en garde dama ko ndax lu mu xas a passé pare na ci bokkut ak ki nga xam ne da nga koo tàggat nag mu jaxasoo sa deret taamuwul ngay tëdd nelaw ndax dax yu sax bi ma yor muy jundur muy xóot sax du ma leen utiliser laa rare laay jëfandikoo xóot ndax su ma war a régler yenn compte yi donc laa ko yebal sampal ko yet bu ñuul mën a régler compte bi ñëwaat te bi ma yàlla yëglu ni yëpp yoroon naa leen nag te bi ma demee ba xam ne jàmbaar ju mag ji il est meilleur ci mu ndar képp lépp moo lay wax lu set tegal fii ma jox la li gën nga xas a teg suuf mu ne la benn turu yàlla bu ko jëfandikooti benn turu jinne bu ko jëfandikooti am nga accès nag di jëfandikoo na astaghfirullah azim aladim laa ilaha illa wa hayyul qayyum am nga accès nag jëfandikoo laa ilaha illallah am nga accès nag jëfandikoo salaatul fatiha bi ma jotee ndigal ci moom ba tey amul benn turu yàlla bu may jëfandikoo bu dul jawharatul kamal weesu ma la si laa amul benn turu yàlla bu may jëfandikoo bu dul bàkk sang bi de ya rasulallah mu tax lu ma am ci barke Cheikh Seydina Alioune Sall ma ko yàlla séddee mu tax seet njariñam loolu la sarax njariñam loolu mais ki feebar ñëw soo xamul li ko daal foo jëm mais faaw nga seet ko boo seetee yow mi seet am nga ta sarax momi miy régler compte yi am saraxam mooy waral bo dindee jàngoro mën ngaa régler 200 bopp soo waxee keroog ngay gën an nekk en forme sama njaboot yaa ngi may dégg parfois sax mu jaaxal lek faj du lundi sax lek du dugg sama gémmiñ du ma yëg boobu métti du ma yërëm tànk bi métti keroog laa gën a nekk en l'aise loolu yàlla mo koy def nit ku ko neex mu tax yàlla na yàlla yeetal mani borom bàmmeel bi waaye gàcce ngalama ki amul kudul mom moom Cheikh moo di gor di garmi di sang ci ay principe am rek mooy tax golo gu cëpp cëpp si kanam nga ne rek may ko temps di xol xool jërëjëf kon nak xaayaan ku dégg séeréer sarax itam dafa mel ni dafa bokk ci say mbir koy jëflanteel moom itam faw rek dafa am sarax bu muy def ku ci nekk yaay xam ban sarax la war a génnee wala dafay aju ci garab gi nee la sarax yu may jox nit mën naa la jox ñaari sarax nga xeeb ko laa wax de fekk mooy régler compte yi xam nga sarax yu bari du priorité tey boo doon bëggoon a woote nga baal ma ci téléphone yi orange wala tigo wala expresso ñaata lettre ngay composé neuf boo composé onze duñu lay wax xaraf yi ëpp nañ boo composé six duñu lay wax matul xam nga neuf chiffres la semaine bi ñaata bés la ci li ngeen jàpp xaayaan ko dégg séeréer nañ dem ci leneen. macha allah neuf jours yi c'est inconnu. Uh-huh. moo tax saa boo demee ba neuf reprendre à zéro. waaw. Oh. jóguma de uh-huh. demee ba neuf reprendre à zéro ñun la sarax mel. faw nga xam ne ndi am naa fi benn mbokk boo xam ne jamono yooyu weesu ginnaaw billaahi la si laa ilaaha barkeb Cheikh Seydi Mahamadul Moustapha benn 200 millions bu mu doon réglé di ko lijjanti 2009 ba tey affaire bi tëx. fu ne mu dugg mu të bi ma koy décanté ginaaru xuuse dong laa ko wax ne ko dama nga génneel ma ko sarax jox ko ndamu sangat benn quatre jours lañu teg mu indil ma kayit digg ndakaaru keere kër na ma am maa la ko may ci xol bu sedd guy ma ne ko tey laa gën a fier pour waxu leen ko ne leen ba buntu bay fay du ngeen dégg nit ku ma wax ne may naa kenn duggul seulement wala mbubb wala tubay ku am looy may may ko say mbokk am na ñu ma ko gën a mérito soxlaa mu ku may may parce que du ma cas social bu ma yàlla teralee ba nopp ma retourné di ñedd ndab yàlla jéppi ma te sama dund wéeru ma ko ci nit ma ko may ko say mbokk ñoo ma ko gën a mérito man du ma lekk sarax jaamur du ma wor du ma wax lu ma xamul moo tax workat mënul def ak man moo tax tey laa ko gën a man sëriñ bu leen la xaalis sarax lànk leen bu leen ko envoyé léegi nag stratégie bu leen tëral dañu xëy suba woo sa waajur bu jigéen na la waxal diw ne ko génte naa ko sàngam ak sàngam waaye na ma envoyé ma def sara sàngam lu lu ci wax ay dóor lañ lànk leen léegi nag buñ ciy dooleeku da ngay ñëw indi sa soxna bu rafet présenté leen ko nga dem ñu wala na la si xaar naa ko mais dafa gaa fase ko tasloo nit sëyu jaamu takkaat ko ci suuf bëgg ñaan yàlla lu yàlla nangu yii mu mënoo ko boole newoon naa ne 16 bi ngay toog pour mën a doxal mu dox ñett yi ñoo ko mu di alxaq alxadl ak alxalim yii boo ko ndar keppee bara teg ko tawatulu ci yàlla sa borom waaye moom it dana la jox mise en garde ndax bu la xasee teg ci sees bi gis la ngay def pexe yu tax nga toog fi mu débranché wu parce que alaysa laahu bi ahkamil hakimin moom mooy kun fa yakun lu mu namm lu def parce que mooy fa anu lima yurid moo tax baatu même kullu man alayha fan sax wa yabqa baa bi dellu ci basmala bi ba ca 41 parfois nga gis ku waxtoom jot yàlla rus ci nit am na li may wax ne am na am na samp yu ñuy liggéey mag dañ ko liggéey billaahi la si laa ilaaha illaa huwa moo tax dafa am loo xam kenn du ko wax ci média waaye sant naa sama ndey yàlla na borom bi yéetal leen ma ne ci kawam waaye kenn du seex Seydi Mouhamadul Moustapha yàlla na borom bi dundal ko at yu bari lool waaye waaye ku am yàlla na raw koy yang yalla nga xaddi su bokkul mo borom xol yu fexu di machallah allah min nañ itam ci say kaddu ngay tudd ay garab di wax ni garab gi fay ubbi dafa mel ni foo dégg ubbi rek teju amon nafa wa xam nga teju ak umute moy lan xam nga parfois nit ku gàtt xel wala ki xelam di reer moy dem ci fajj ken ko dama bëgg ubbe ko wa xam nga ki lay ñew na la gennal lu wex rek wala gennal lu xonku rek mais lu weex dafa bëri façon lu xonq am même temps dafa bëri façon il faut nga xam compte Google yi nga mën ko ubbi téléphone bu bees soo ko jëndee faw nga mën ko paramétrage am li nga soxla ci ay données yaa xam nag page ba nga def page yi bokkuñu même yow mi sax di wajur, bu jigéen mën ngaa am ñetti bant ba ñeent mais boo demee ci nit naan ko setel ma sama njaboot yi naa fekkam wu rek mu ne li moy sen sarax mais parce que xànjar nga yakam rek pour récupérer ko dem sa yoon moy ki ñëwati na bañ nit ki dama um mu ne amul problème dina la may bëriwél ngeen mom lañ xam bëriwél ngeen lañ xam somp jox la nga dem tok une semaine affaire yi gën a të nga mujjee toog naan man dal weddi sëriñ ci quoi fekk général nga sëriñ si ma bag na sëriñ si mais kenn bëggul du sëriñ missionaire la dafa mission bu mu sumb te faaw mu mottali ko ci kàttanu yàlla moo tax yow mi umu même bu dul kenn bëggul bu dem ci fajkat naan ko damaa umu ñaanal ma ubbeeku parce nit ki balay mën a mën a ubbi faw mu dindi blocage bi mais blocage bi dindi ko moom ay risque da ngay xat seppi liggéey sànni ci mbedd bi ay waxu caaxaan la dafa am ay risque man parfois ma day ci yoo xam ne su ma paree dama ko yëg poids bi sama kaw la preuve bërki bi ñu tourné émission bi may yéeg yéeg naa ne am na takk bu ma sànni woon dafa wàcc mais bi ma ñëw damaa fekk mu jàpp fas bi ma ñëw fekk mu toog deux heures de temps yoo xam taaw di fudd rek ba mujj jël benn garab defal ko jat libere ko mu dem yoonam moo tax boo demee ci fakkee ne ko jox ma ma ubbi laa ubbi ubbeeku day jël sunguf rek sànni la wala mu yor benn alam nasraam rek bind ko ba mat ku ñëw mu jàmm ci ñett rek jox la ne la demal dina ubbi mais alam nafara dina ubbi moo tax boo soxlaa ñaan dem ci fajkat parce que yow xamoo li gën ci yow li nga bëgg rek nga xam moom mi xam li gën ci yow danga koy bàyyi sa bopp moo tax yow mi sàkku ci ñaan ci fajkat fajkat laa wax de waxuma ñi yem tilleen ak jàmm gën a caaro yi nga xam ne peese xàncax rek lañ ci nekk ak sunguf ak tilleen dem jënd ay bopp nag ñun woow ba mu xonq ak ay leket sànni ci biram nekk teg ci ay fen rek fexe leen ngeen fal dëgg ak résultat ak njub waaye xamal naa la ñaar bolokaas moo xam nay umute moo xam nay takk lu mu compliqué compliqué compliqué su ma dogoo ci fukki minute yàlla rek ci mandarawaay du nit moo tax ma taamu benn bés bu muy fi dimanche si lay sàkke pexe si lay changé données yi te rus naa lu yàlla na déet bu amé rek yaramu nit a fen parce que man la tamay may génn xam naa li ma war def te jaar na fépp ba noppi mo tax bu fajj ne en résidence 100 cas jox na 70 personnes résultat xamul boppam bien vrai résultat nek ci loxo nit ci loxo yalla su borom la nek mais yalla ki taxaw la xamul dum kay def ki tëdd moom deuxième classe nañ ko mais ki taxaw faaw mu sàkkal ko pexe te damaa taxaw nak te illeer bi mo yor pour mu boy pare ko mo pour waru boy kon nag tadir joxum min aish si yahlamun khayan ku dégg séeréer kon nak yow mi nga xamni yaay top ken bu gul bu Seyd al mustafa si dégg ngeen solo si nga xamni wax nako ci ñi nga xamni lu bari dafa tëju ci ñom kon nak fo meuna nek ci bir rew mi ak ci bitim ken bu gul dina taxaw tem ngir sa aajo yoyu wala sa jangoro joju faju wotel rek ci numéro yi ngay lol di nga jot kenn ci ndawam mu tek la ci yoon yu leer xam ngeen ni mardi jeudi ak samedi bu jot ci la di dalal ay ganam fu ne nit di fa ci aduna ngir di fekk ci fi ci tableau tiwawon dimanche nak bes la bo xamni ci lay janok jangoro yi soxla yi ak jafé jafé aduna yi nga xamni ni fay taxaw tem ngir joyanti ko macha xam ngeen ni baxu nañu bu ñuy jéxal suñu émission dinañu wax ci actualité tay nak dañuy dugg ci politique xam ngeen ni ñi nga xaarandi élection locale yi nga xamni warna am ci réew mi ñu gis nak ay ñooñ politique di la seet si fii nga nekk dafa mel ni da nga bëgg a sóobu ci politique <laughs> waaw man nag moom jot naa message fu ne ci àdduna ba recevoir naa sax benn kilifa bu mag boo xam ne jamono bi si Gambie la jógee waaye dama leen wax benn toujours mooy sama ñaareelu kàddu mooy kenn bëggul du politique politicien missionnaire la waxuma la duma politique de bu ma sëriñ Moustapha soxlaa ci politique damay wàcc politique waaye ku dul moom jarul ma wàcc terrain bu ma soxlaa pour ma campagne damay wàcc battre campagne parce que man damaa voté ba noppi te damaa far na ba damaa far te damaa voté ba noppi bu soxlaa pour man ma campagne damay battre campagne ak mboolem fu soppee kenn dugul nekk nag ak mboolem ko ma mës a jiite ràng waaye bu dul moom kenn jaraluma ko nag dama ko généraliser bu dul moom laa wax kenn jaraluma ko ben patron dong moma jaral déplacer wu tax ñi yaakaar ne damay politique ñi rep rep nan la seen xel yi man politique uma mbolo bi ma top yalla suma borom la du ci man jam la bes dafa ñew damay échoué waxtu dafa ñew damay échoué té nit ñi nak kenn momu len di nga mala sax bi nga yor ci kër boo amé ci mom yërmane xam na yaay kat waxon na la ko fi tey la gëna mëna waxat amuma benn dërëm ci bank barkep Cheikh Seydi mohammed Moustapha mustafa billaahi de si laa ilaaha aw ma benn dërëm ci banque lancé naa leen devis nag ku dugg ci banque fekk fa dërëmu kenn bëggul ma ñaa la joxal bu sedd koy du ma denc xaalis ci banque te du ma denc xaalis lu ma am jaam ñee ko moom ndax liggéey pour jaam ni jëw ko ci ñoom moom mooy satisfaire borom bàmmeel ba tëdd xam na ka ma bàyyi ci dunya bu ma génnaa doon defar toogaayam waaye mu yegne mom fam ma nga teud fier na na njabot bële mako jur te mako nampal sama wel boobu moy sama mission mais du denc deureum ci bank moo tax bu ñu gisee may def yenn social mu bet nit du ma politique te pare wu pour diko def bu kenn soxla nak mën wacc terrain bi xaayaan ko dégg séeréer jërëjëf kon nak yegsi nañu fi nga xamni fi lañuy ñuy jotay bi sëriñ bi lan ngay taggo wa xana bak tay ñaanal rek kima amul kudul mom mu di gor di garmi di sang bu dee aseex saydi Mouhamadul Moustapha moom mi nga xam ne yetu buur dammut ñu dëggam yàlla na borom bi dundal ko junni at ndax gor la garmi la sang la te fier nañ nag pour voter ak moom te fier nañ pour moom mu nekk suñu kilifa te nag ban xasee far ba noppi nag laa xaw fu naa wa laa hum yahzanun la kon nag yàlla na borom bi dundal ko junni at ak ñu ko ko yéene wa ma ka alalay bi xasisin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سبب سبب